Je suis membre du F24. Je suis membre de Yewi Askani. Et pourtant, je suis à ce dialogue-là en tant que Tahawou Sénégal. De mon beau petit dialogue parce qu'il s'agit du Sénégal de mon beau petit dialogue parce que je fais partie dans cette salle de ce qui pendant longtemps et toujours ont compris que nous nekk pas gens qui dañ koy doxal pour juboo parce que Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis membre de l'opposition que vous dites radicale. Aujourd'hui, cette frange de l'opposition n'est pas ici. Je vais essayer de tenir les trois minutes.

ñun duñu dem man leen déet waxtaan nag moom du am tàyyi du am sonn da ngay waxtaan rek di waxtaan rek di ngeen jubóo ñun loolu la ñu gëm moo tax ñu ñëw fii monsieur le président la question du troisième mandat du lu bees il faut ñu waxtaane ko il faut ñu waxtaane ko mënul ñàkk que ñëpp bokk ci élection bi mënul ñàkk ñëpp bokk war la que parrainage bi nga xam ni problème la ay politique ak ay journaliste munu ñàkk parce que nag xam nga réew mi su fekkee dañ ko bëgg a doxal il faut que ñu bañ ragal di waxante dëgg suñ la nga waxante dëgg rek danañ avancer fii li am solo mooy en tout cas ñun suñu waaye dañu ñëw pour liggéey pour waxtaan pour juboo pour réew mi jëm kanam parce qu'il faut que nous rassurions ce

am na ci loo xam ne xalifa sàll fàttali na ko booba jamono maa ngi doon wax ne am na ñoo xam ne waroon nañ mën a bokk ci élection te bokk ñu ci woon euh, war nañoo fexe kon ba élection bii di ñëw ñu mën ci bokk waxam nañu aussi ci wàll liberté yi et cetera bon euh, am réew daal bu njëkk bala poudre koy joxe da ngay toj réew mi ñii dee ñii dam ñii daw ña fa des nga yilif leen ba keneen ëpp la doole ñëw toj réew ma yilif ko muy wéy noonu léegi nag dañuy woote bu jant soye ñu wàññi ku ëpp la toog moo ëpp yërmande defe naa ni euh, élection dafa am solo parce que c'est la procédure de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir suñu mànkoo ci règle yi rek réew mi dina mën a dal euh, réew mi nag xaw naa jaxasoo mais man jàpp naa ne euh, yow président yaay responsable de affaire nu mu mënti demee moom dañ naan yow parce que sécurité ak stabilité ak paix yow yaa ko yor ci Sénégal j'espère que di nga ko assumer jusqu'au bout assumer bi nag évidemment bari na ay dimension euh, élection euh, dialogue bi daaw daaw bi pare woon na presque yaakaar naa ne mën na bañ a yàgg commission yi bu ci nekk toll woon na ci def rapport final kon defe naa bu ñu toogee finaliser euh, mbir yooyu réactualiser ci commission politique li ñu war a waxtaane je crois que mën na bañ a yàgg te mën na efficace te mën na joxe résultat yaa ngi fàttaliku bi ma ñëwee fii damaa wax bay dem dikkaat daal di ne eh, am na bu ma fàtte woon de troisième mandat après ma ne la mais du ma ci wax dara wax ndax yow ci sa bopp tontu nga jëm léegi nee nga nañ ko waxtaane euh, man defe ne man nañ ko waxtaane waaye daal problème bi defe naa ne man nañu accuser gouvernement président la république man nañoo accuser opposition Sénégal yëpp yëpp ku nekk fii toog am na noo war a seete sa bopp

mu xaaju du yoon du dëgg Sénégal nangam nangam nangam te sànq rek def na ko alors ça ça ça ça je pense que war nañ koo waxtaane maa ngi leen di gërëm di leen sant merci